laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah daaru bayre faal couture boutique bii la ñëpp di wër ngir liggéey bu sell akub xarañ ci lu jëm ci wàllum ñawu góor ay modèle laxasaay bay faal yu taaru bundu kër seex rafaal yu couleur boo bëgg ak baylaat turki njaareem soin bu lépp la ñuy ñaw di jaay ba ci dàll costume africain ba ci mbaxana lépp disponible ci boutique ba doxantul gaaw mbaa nga woote fa def sa commande ñu jaay la daaru bayre faal couture mi ngi waaye ci amoo 6 dañuy livrer ba bitim réew numéro bi di 77 507 67 25 wala 77 640 93 10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 la ilaha illallah la ilaha ngeen déggee tur yàlla wu mag woowu nag ñoo ngi santaat yàlla bu baax a baax danoo dëgmal bis bu mag la 21 avril bu nu kortee ba noppi dimaas ba ca jëkk bu dellu see incha allah rabbi bis boobu nag ñoo ngi ko baaxu ànd ak Serigne Cheikh Anta Fall ci ndigalul kilifaam Serigne Daam mu jot ndigal nag ci kilifaam muy sëriñ Cheikh moom sëñ Aliou bis boobu nag tubaarkàlla at mu jot bu nu ko wootee bu nu xëyee daanu jàng alxuraan jàng xasida def ay salaatu ala nabi ak ay berde bu ngoon jotee ñu tàbbi ca tànt ba dundal bis bi ak turu yàlla ànd ko ak njabootu maam Serigne yëpp bis boobu ren ñoo ngi ko tuddee jàmbaar ki nu ko tuddee nag mooy Serigne Mountakha Mbacké moom sëñ Mamor moom Serigne Mountakha bis baa ngi noonu waaye nañu dara jaale ko magam soxna Faati Silla bis baa ngi noonu ñoo ngi ci woo ñëpp. góor ak jigéen mag ak ndaw waaye di ci woo mbooleem jabatuk Serigne Touba gi ak seex yoon wi waaye di ci woo mboolem jabatuk maam Serigne Fall gi fukki buntu kër yi ak ñaar ñoo ngi leen di woo ñoom ñëpp ndax da wax ni fukki buntu kër ak ñaar waxtu woo ko déggee na sa xel dem ci maam Saliou Fall ndax maam Saliou Fall ak maam Siraay Fall ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ak baay kon ñaari ñaari buntu kër amul benn buntu kër am muy fukki buntu kër yi ak ñaar ñoo ngi ci woo ñëpp di ci woo nag njabootu maam Siraay Fall gi ak seex yi maam Siraay Fall yi nga xam ni danoo seex ci buntu kër maam Siraay Fall sëriñ bi nee na bàyyul kenn góor ak jigéen mag ak ndaw fu waay nekk tey dégg sunu kàdd mooy sa soññee ci bisub Serigne Cheikh Anta Fall bi mu sant maamam di ci ñaanal Serigne Aliou Fall maamam ju baax je ñoo ngi ñaan yàlla ñu fekke ko ak jàmm te tal ko waaye dañuy bàyyee kàddu gi Serigne Khadim fay moom mi nga xam ni mooy woote nag ci njabootu Serigne Modou Mbenda Fall gi yëpp ñi nga xam ne kenn ku ci ne day jëwrin te kenn ku ne xam ne buntu kër bu màgg am na ay bànqaas yu am dina woote ci bànqaas yooyu yëpp bu nu paree danañ jox kàddu gi sëriñ Masamba Cuun mooy muy soññee ci li nga xam ne mooy waa marché Mame Binta gépp góor ak jigéen mag ak ndaw ak ñu ko daan waaji daan ko ànd ak sëriñ bi kon bu ko defee ñu wàcc sunu kàddu jox sëñ xaadim aoudu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin al makin wa ala alihi wa sahbihi dawi ridwaani wa tamkin salaamaaleykum mbokk yi nangu ñuy ñëpp di ziyaari ñëpp di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan suñu borom boo leen defal jàmm mbokk yi bu ngeen déggee suñu kàddu nag muy bis bu am solo boo xam ne noo ngi koy waajal muy bis boo xam ne Serigne Cheikh Anta moo ci ñaanal maamam di bis bu am am solo waaye itam boo déggee kaddu gi xam ne kat kaddu gu woote la. kii woote nag képp ku mu woo rek xamal ne am na ci yow yëg-yëg itam képp koo xam ne woo nañ la la ngay fayee woote bañ la woo mooy nga wuyu sa ka nga xam ne moo la woo kon kii woote am na yëg-yëg ci ko woo waaye itam ki nga xam ne moo wuyu ji am na yëg-yëg ci ki nga xam ne moo ko woo. waaye itam niki noonu woote boobu ci lay wootee ñi nga xam ne ñoo di njabootug sëriñ Modou Mbend Fall gi yëpp waaye itam woote boobu di ci jiital sëriñ Seex Xadi waaye itam niki noonu lay wooyee njabootug sëriñ Taala Modou Mbend gi yëpp waaye itam woote boobu mu ciy jiital xalifaam di sëriñ Daam Taala Fall niki noonu itam lay wooye njabootug sëriñ Amdi Modou Mbend Fall gi yëpp di ci jiital jëwrinam di sëriñ Seex Fall ni ko noonu itam lay woowee njabootuk sëriñ Mbàkke Fall gi yëpp di ci jiital xalifaam di sëriñ Fàddilu Fall ni noonu itam lay wooye njabootuk sëriñ Gunda Fall gi yëpp di ci jiital ab xalifaam sëriñ Dam Fall ni itam lay woowee njabootuk sëriñ gi yëpp di ci jiital ab xalifaam sëriñ Dam itam lay woowee njabootuk sëriñ Xalifa gi yëpp di ci jiital ab xalifaam sëriñ itam lay woowee njabootuk sëriñ Moustapha Fall gi yëpp Kaffrine di jiital jëwriñam di Serigne Amdi Fall niki noonu itam lay woowee njàppoodug Serigne seex Mbacke Fall gi yëpp di ci jiital ab xalifaam Serigne itam lay woowee njàppoodug niki noonu itam lay woowee Serigne Aliou Fall njàppoodug Serigne gi yëpp di ci jiital ab xalifaam di Serigne seex Fall niki noonu itam lay woowee njaboo niki noonu itam lay woowee Serigne Khadim Mbacke. ibnu Serigne Cheikhouna Mbacké mu ngi koy woo ci bis bi ni ko noonu itam lay wooyee Serigne Cheikh Fall ibnu Serigne Dame Fall di sët ci Serigne Aliou waaye itam di ko di ci woo mboolem ñi nga xam ne ñoo bootu ginnaawam ni itam lay wooyee Serigne Khadim Mbacké di xalifa Serigne Modou Hawa Balla ni ko noonu itam lay wooyee ñi nga xam ne ñoo féete ci wàllug nijaayam waaye itam di woo ki nga xam ñi nga xam ne euh, di di woo Serigne Darou Dia di xalifa Serigne mbay Dia ca Laaya bi ñu ngi woo waa Laaya bi ñëpp kon ci bis bi waaye itam ni ki noonu itam lay woowee ñi nga xam ne ñoo ay nijaayam di ci jiital Serigne Ousmane Dia di xalifa di waa ci njabootu Serigne Ousmane Dia ki nga xam ne moo di ma nag moo di Serigne Omar Dia waaye itam ni ki noonu euh, di ci woo Serigne Ndiaga Dia bu dee ci wàllum soxna yi mu ngi ciy woo soxna Ndioba Dia waaye itam ni ki noonu mu ciy woo soxna Ndeye Ndiaye kon daal woote mu noonu ñii ñooñu ñi nga xam ne Serigne moo ngi lay woo ci woo ci bés bi ñoom ñëpp nag ñu sàkku seen teewaay waaye itam ni ko noonu lay wooye mboolem mbokki jullit ñëpp rawat na ñi nga xam ne ñooy ñoom la bokkal waa kër Cheikh Ibrahima Fall kon daal woote bi mu ngi noonu képp koo xam ne rek gis nga vidéo bi wala gis nga message bi nga xam moom la ñuy lancé da ne kat kenn bàyyiwu la woo nañ la ci bis bi kon ñu ngi woo mbokki taalibe yi ñu ñëw jàpp ci bis bi nu mu gën a taaroo rek ñu gën koo defee noonu waaye itam ñu ngi ñaanal suñu waa ji suñu seex suñu borom taxawaayam lool mu yàgg koo woote waaye itam di ko yàgg ànd ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoom la koy faral di àndal saa su dikkee kon nag ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñ kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. déggee suñu kàddu nag ñuy joyal ab soññee di ko jëmale ci suñu bopp ah, di wax ne ñu ngi leen di woo bisub cant bu ñuy amal bu ñu koritee dimanche ba ci njëkk bu delsee yamoo le 21 avril sëriñ bi nag nee na mi ngi ciy woo ci turu bul Murit marché Mam Binta mboolem daayira yi bootu ci ginnaawam yëpp ñu ngi leen di woo bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen mag ak ndaw naka noonu lañ ciy woowee waa tuuba sànjara ak waa Ndartu njaay boole mboolem daayira yi yi mu ëmb tamit ñu ngi leen ciy woow kon bu ko defee naka noonu lañ ci woowee mboolem mag yi nga xamante ne ñoom la seqal liggéey bi yabo euh, te bootu ci marché Mambite yëpp bawuñ kenn. dañoo jël kàddu nag di ko jëlee ci kàddu daayira Jazbul Murid ak waa Jazbul Ixlaas cant gi nag. dafa nekk bis boo xam ne moom rek nañu am muy suñu bis di bis bu mag ñu jàpp ko nag bisu dimanche bi jiitu si korte gi bu delsee ñu ngi ci woo nag mbokkum jullit yëpp di ci woo woo mbokkum daayira yëpp waa di ko tàmbali ci waa Nuuru Daarayni waa Mawaahibu Naafi bopp bépp daayira bu ñu bokkal marché Maminta rek ñi ngi lay woo ci bis bis bi programme bi nag mi ngi tàmbali ci buñ xëyee suba di ci woo waa bépp ñu ñëw teew si képp koo xamante ni mën nga cee teew bépp dayra nga ñëw teew ci programme bi ñu àndandoo liggéey ko ba guddi jot ñu ànd ñu dem ci baas ba àggalee fa liggéey ba. waaw kay jëf mbokk yi ñu santaat yàlla bu baax sëriñ bi defaat lu am solo di ci fàttaliku njabootu sëñ Adama Guèye ñu sëñ Mouhamed Guèye mu sëñ Abdou Samad Guèye ñu ko ci rendre hommage waaye sëriñ Moustapha Guèye moom sëñ Abdou Samad Guèye moom it ñu ko ci rendre hommage waaye sëñ Xaadim Diop moom it di jarbaat ci sëñ Abdou Samad Guèye moom ñu ko ci rendre hommage bis boobu nag bu ngeen gisee sëriñ bi at mu jot mu am ñoo xam ne daan di ay bokkam di ay magam ñu bokk lépp yàlla dogal ñu fekke woon ko daaw te xañ na fekke waatuñ ko ren ñooñu la ci sëriñ bi ñaanal di leen ci fàttaliku bu xëyee ñu jàng arxuraan jàng xasida def ñaanal leen suñu borom jëggal leen te dolli seen i leer ci barsàq Muhammadiya sëriñ bi def na lu am solo ñoo ngi ñaan yàlla yàlla na ci yàlla jotale ci barkeb sëriñ Touba waaye ñoo amaan mbégte nag lool ci ki nga xam ni moom lañ tudde bis bi di jàmbaar nit ku baax di koo xam ne si àdduna sépp ko xam waaye nag mu jaay lépp jënd ko taalibe foo ko fekk jërut nga koy laaj sëriñ Muntaxa moom sëriñ Mamor Baye Fall gi lay dund maam Sëriñ Fall rek la bëgg waaye nag féete nag ak maam ju baax te di ko lëggéeyal bis bii Serigne Cheikh Anta Fall moom la ko tuddee diggante ak Serigne Cheikh Anta nag ñun ñii am na luñ ci luñ ci xam waaye Soxna Faat Sylla di magam di kenn ci Serigne bi ñu dara jaale ko bis bi bis baa ngi noonu ñun ñëpp ñu maase ko ànd fas ku yéenee waaj. waaj goo xam ne si bokk na ci waajteef yi ñu ko daan waaj bis boobu nag wax naa ko ba tey nee naa waa Marsama Binta am ngeen ndam li tax ngeen am ndam nag mooy sëtub sëriñ Modou Mbenda Fall bii dëkk ak yéen ba noppi di fi woote bisub Maam Saraay Fall yàgg ko ànd ak yéen waxtu wu ci ne mu di ko taxawal fii deen ko fàttali bis baa ngi noonu le 21 avril lay doon bu nu kortee dimanche di si jëkk bu dellu see mooy bis ba incha allah bi góor ak jigéen mag ak ndaw fu waay nekk ñoo ngi koy ñaan di la ko waaj ko te di ko fàttaliku koo jàpkaarlool fàttaliku bisu sëriñ Cheikh Anta Fall bi ñu ngi yàlla fekk jàmm te tal ko ci dooley maam Cheikh Ibra barkeb Serigne Modou Mbenda Fall jërë jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala laa ilaaha illallah daaru bayra faal couture boutique bii la ñëpp di wër ngir liggéey bu sell akub xarañ ci lu jëm ci wàllum ñawu góor ay modèle la xasaay bay faal yu taaru bundu kër seex rafaal yu couleur boo bëgg ak baylaat turki njaareem soin bu lépp la ñuy ñaw di jaay ba ci dàll costume africain ba ci mbaxana lépp disponible ci boutique ba doxantul gaaw mbaa nga woote fa def sa commande ñu jaay la daaru bayra faal couture mi ngi géejawaay ci amoo 6 dañuy livrer ba bitim réew numéro bi di 77 507 67 25 wala 77 640 93 10 faal doley biir ak biteey laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah